di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak télévision Futur Média soirée électorale bi ñu koy euh, wëyal di taataan résultat yi fépp fu ñu mën a nekk ci département yi euh, ci euh, réew mi di Sénégal ma am mbégte ànd ci ki nga xamante ne moom mooy Pape Ngagne Ndiaye di sunu doyen di sunu grand Pape Ngagne maa ngi lay nuyu bu baax. Sara maa ngi lay fay maa ngi nuyu téléspectateur yëpp di am mbégte di ki bokk ak yow plateau bi ci jamono bi nga xam ne dafa am solo lool li nga xam taarixu politique ndax fi ñu tollu tey daanaka dugg nañ ci soirée électorale bi euh, mu yemoo ak tendance yi nekk ay tendance yu lourde euh, ci diggante euh, ci diggante Yewwi ak Benno Bokk Yaakaar bu mhm. sax ay tendance yoo xam ne dafa serré parce que ku xool résultat yi di nga xam ni vraiment Yewwi jël na avance bu sori digganteem ak Benno Bokk Yaakaar ci élection yi mhm. donc ci moment bu am solo la ñu toll fi mu nekk nii tey ci démocratie waaye itam ci ci ci wàllu tolluwaayu réew. Mhm. ndax dëgg la gis nañu ne élection yi ci ci ci début bi ci suba si xawoon na xaw a tekk tekkaaral mais ndekete nit ñi aussi li ñu war a def. ni seen devoir citoyen def nañ résultat bi moo nekk nii. waaw résultat bi moo euh, may fàttali ne bu si kanamee euh, Souleymane Niang di directeur de l' information de la télévision Futur Média euh, ñu fekk si fii si plateau bi Barka Ba aussi di spécialiste on va dire journaliste bu spécialisé en politique nekk consultant maison aussi dinañu fekk si Pape Ngagne am na loo xamante ni tamit bu ñu xoolaatee bu baax résultat yi ñu fi dara jot jot sanq ba tey mooy percé wallu percé mm-hmm. wàllu euh, wàllu Sénégal euh, euh, opposition bi defoon na intercoalition yeewi wàllu mais gis nañ ne ci ay gox yu bëri wàllu am na fa def na fa ay score yu mag. waaw plus qu'une percée parce que bu ñu waxantee dëgg rek li nga xam ne moom ngay dégg partout loolu moom c'est c'est c'est plus qu'une percée te man jàpp naa ni itam loo xam ni la mën nañu wax ni c'était xëy na ci ñi nga xam ne ñooy waa Benno c'était pas prévisible parce que nit koo xam ni samp nga sa mbër jàpp nga ni vraiment day dem pour jël victoire mm-hmm. buñ demee ci biir waxtaan bi dinañ wane ni lii nii woon ñàkk ndax itam xam nga euh, loo gis rek dafay am dynamique. est que yaakaar nga ne ñëw góor gi mi nga xamante ne dañ ko annoncé Ablaye Wade ñëw mu ñëw effectivement euh, daal di voté am na euh, répercussion si li nga xamante ne mooy score bi wàllu jotaguma def si si si si yenn bureau de vote mais xëy na bu fekkente ni sax am na lu mu ci lu mu ci lu mu ciy joué ñëw góor gi gaw ma ni bari na. parce que soo xoolee itam góor gi 24 heures la ñëw après ñu dem juste ci élection yi mais fekk na waa Yewwi notamment son leader Ousmane Sonko def def li nga xam ne mooy campagne mhm. mu nekk campagne boo xam ne itam ku koo xam ne suivre nga ko xam ne def nañu une campagne dégg naa sax ci. pa ci 46 départements yi amul fenn foo xam ne Ousmane Sonko tegu fa tànkam ànd ko nag ak ñi nga ne ñooy leaderu euh, Yewwi Askan Wi euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa waa aussi ni ñu tase. Mhm. parce que waa Wallu jaar nii waa Yewwi jaar nii mu nekk stratégie boo xam ne mu ngi commencé euh, ci intercoalition bi par exemple naka la ñu mën a def ñoom ba ànd. Mhm. te ànd bi li koy wane li ko nga xam ne moom moo ko sumb mooy dañ génn ci ay élection locale bi ñu génnee ci bi ñu génnee ci élection locale yi ñu gis ni par exemple soo boolee lii yeewi am ak li wallu am mais xajuñ ci benn bokk yaakaar. Mhm. ñu foogoon ni ànd boobu duñ ko réussir ba ci dernier a ñu réussir ko biñ ko réussiree loolu laa la wax ni la mooy wane ni mënul woon ñàkk lii nga xam ni gis nañ ko mu gis ko parce que élection aussi arithmétique la. Mhm. mathématique la. Mhm. ñi nga xam ni boo boolee li ñu amoon. Euh, mën na gagné ki nga xam ne mooy Benno loolu su fekkee réussir nañ ko kon lu mel ni mënul woon ñàkk quoi. Euh, Barka Barka Ba mi nga xamante rejoindre nañu ci plateau bi ñu am mbégte dalal ko Barka maa ngi lay nuyu. sans transition damay daal di ñëw ci yow nag ana naka nga gisee euh, première tendance yi nga xamante ne jot nañ ko Barka. bon avant mooy wax ci tendance yi euh, ci déroulement global scrutin bi ak campagne bi la bëgg a wax bu pare. Mhm. mooy que tey dañu war a la maturité du peuple sénégalais et que wane nañ encore que xam nañ carte am na lu muy jëriñ. et am na ay fitna yu ñu fi dundoon sénégalais ñu ngi nekk di ko régler par les urnes. Mm-hmm. et que tey su fekkee li ñu euh, tendance yu ñu gis depuis déroulement campagne bi amul ay moor amul yenn tension yu extrême yu ñu doon ragal. Mm-hmm. parce que tamit bu ñu fàtte ci ban contexte la ñu jógee. Mm-hmm. dañoo jógee ci ay contexte yu tendu depuis mars. où on a eu quatorze morts après ñu amaat yeneen moor yoo xam ne suñu démocratie euh, malheureusement euh, munoon na faire l'économie de cette violence la parce que bu ñu fàtte toujours fu ñu jóge on a eu une alternance saluée à travers le monde entier en 2000. priorité au direct Barka ah on m'a fait que Bakary Konté mi ñu teewal Sédhiou il est en ligne Bakary ñu nuyu la. Euh, euh, waaw Bakary ñu ngi lay dégg. résultat yi am nag def nañ déjà euh, résultat commune bi sept bureaux de vote ñoo am ci commune bi. Mhm. Euh, sept centres de vote donc euh, ñi def cumul bureau de vote la commune de donc inscrits nous avons quinze mille cent vingt neuf votants nous mille trois cent bulletins nuls nous avons suffrages valablement exprimés six mille six cent soixante dix neuf coalition Bokk Gis Gis 36 euh, euh, votants euh, coalition Naatangué Askan Wi 38 votants coalition alternative pour une assemblée de rupture 27 coalition Benno Bokk Yaakaar 2990 coalition Buntu Bi 19 coalition les serviteurs 35 coalition Wallu 169 coalition Yewwi Askan Wi 3959 donc taux de participation bi nekk quarante huit virgule vingt cinq pour cent lu ñu mën a jàpp rek mooy coalition Yewwi Askan Wi gagné na la commune de Sédhiou euh, euh, tendance yi tamit euh, dans le département de Sédhiou Euh, la commune de Bemmé, la commune de Djibabia, la commune de Sansamba, la commune de Gendé, la commune de Koussi et, et, commune de Marsasou, deux voix le Beno Bokoyakar gagne donc mun nañ ne euh, euh, commune euh, département de Sédhiou boo moytul pour la première fois dans l'histoire politique de la région de Sédhiou département de Sédhiou dina nekk ci loxo opposition maanaam yeeyu askan wi instant yi moo nekk en avance pour mun a mun nañ mun nañ ne nag boo moytul ñoo jël département bi parce que communes yi bëri fu mu nekk nii première tendance yi yeewi askan bi moo nekk ci kanam boo jëlee département bu Bounkiling foofu tamit gis nañu la commune de Diaroumé entre les mains de wi commune de Diakounda la commune de Bonna la commune de Bounkiling mu ngi ci entre les noms de les wàllu Sénégal wàllu ñoom ñoo gagné commune yooyu yëpp donc ñu ngi am ballottage avec euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le département de Goudomp euh, gis nañu ci première tendance yi commune de Goudomp Benno Bokk Yaakaar le maire Malang Cissé boo xamante ne moom lañu def tête de liste euh, gagné na commune de Goudomp bëri na tamit ay communes yoo xamante ne ñu ngi am ballottage entre yeewi askan bi ak Benno Bokk Yaakaar mais lu ñu mën a jàpp nag euh, ñu bëri foog nañu euh, commune de Goudomp boo moy Benno Bokk Yaakaar dinañ ko gagné donc Sara lu ñu mën a jàpp euh, mooy département bu Sédhiou département bu Bounkiling boo muytul yeewi askan bi dina ko gagné wala bokk mu ñu nekk en ballottage en tout cas loolu lañ mën a jàpp ci première tendance yoo xamante ne am nañ ko fii ci région bu Sédhiou jaajëfal bu baax euh, Bakary euh, Konté waaw euh, donc ñu daal di woy ak yow Barka ak yow la ñu nekkaloon ci déroulement scrutin bi ak maturité peuple bi peuple sénégalais bi. bi mu wone encore ak fi ñu jógee. Mhm. ak le niveau de tension qu'on avait noté gisoon nañ ne quand même campagne bi ça c'était relativement bien déroulé mu nekk déjà lu lu lu nga xam ne dañ ko war a saluer. jour scrutin bi aussi gis nañ ñu ngi ñu ci dans les grands standards démocratiques tey defe naa kenn waxagul ay waxu contester élection fichier électoral nga xam ne moo doon polluer tout le temps le le débat ñu ngi may wax ñu ngi may faire signe que nous avons euh, la réaction de Aly Ngouille Ndiaye mi nga xamante ne moom euh, ci tendance yi ñu amagum moom moo gañe foofu la ci Linguère kon euh, ñu déglu léegi Aly Ngouille Ndiaye est-ce que seen tool waaw yàlla seen tool nañ ko amuñ ci mbetteel te le fait que ñu gagné lépp waxoon nañ ko liñ koy li nga xamutoon rek mooy ban écart lañ koy gagné mais waxoon nañ ko ci njëlbeen ga fii moom problème bi du gagné problème mooy ban écart la ñuy parce que xamoon na ne élection bi dina jafe dana jafe Linguère dana jafe Daara dana jafe Warxoof peut-être dana jafe dans une moindre mesure Barkédji pourquoi ma lim ci ñeent yooyu parce que ñeent dëkk yëpp waa Yewwi dañ fa investir lu bari parce que ñun boo xoolee suñu investiture yëpp ñu nekk titulaire euh, ñu ngi ci à peu près six personnes titulaires ak euh, ak suppléants mais boo xoolee Yewwi ñu ngi ci huit déjà rien qu'au niveau de Linguère y avait trois qui étaient investis au niveau de Warkokh également am nañ fa investi au niveau de Dara au niveau de Barkédji tey ñun ñëpp ay mbokk lañ donc kenn ku ci nekk boo ko investir mu ay mbokkam yaakaar si ñoom du ñàkk danañ ko mën a euh, jàppale pour yaakaar ne dana mën a jàll ci ci élection bi waaye yeneen communes yi ci des yëpp wax dëgg yàlla gagné nañ ko gagné bu rafet donc ñu ngi xaar résultat yi mu ñëw waaye. ndam bi moom kenn werante ko gagné nañ fukki commune juróom-ñeent yi nga xam ne moo composé département de Linguère donc gagné nañ ndam li département de Linguère. waaw maanaam effectivement gis nañ ne participation bi wàññeeku na par rapport ak déjà élection locale bi passé rek nga xam ne yàggul mais peut-être période yi wuute xam nga heure bii nii ñu ngi ci période période euh, transhumance. Euh, ci ñoo xam ne ñi peut-être seen yi dem nañ ci àll bi jotaguñoo ñëw parce que semaine passée rek. la commencé taw Jolof donc jot bu ñu yegsi notamment jur yi nga xam ne yow jógee ci nooru Jolof jëm jëm jëm ci jëm ci sud bi ñoom ñëpp mënoo gënoo del si ñu mën a participer donc loolu bokk na ci raison yi am na peut-être d'autres raisons il faut ñu analyser ko nag maintenant mais euh, ñaar yëpp am na aussi ñoo xam ne jàppoon nañ ne puisque élection bii ñu génn daanaka ñun dañoo gagné woon aussi lépp euh, bii aussi c'est gagné d'avance ñoo xam ne du leen donc toog bañ a voté nag alhamdulilah mujj nañu gagné mujj nañu gagné dix-neuf communes yëpp. monsieur le ministre dañu seetlu allah gagné ngeen bu baax moo ngi feeñ que ne ailleurs vraiment demeewul noonu. waaw waaw waaw li ñuy lire moom effectivement wax dëgg dalul xel parce que nous sommes parti au pouvoir te en attendant peut-être aussi que résultat yi ñu confirmer ko parce que li ñuy li ñuy dégg ci département yi ñu wax ne ñàkk nañ ko xaw na bari mais peut-être d'ici demain ba d'ici la fin de la nuit dina mën a exactement fan la toll mais en tout cas chiffres yi nga xam ne c'est pas bon pour notre coalition. nous avons appris sur la, au de la presse les résultats qui nous viennent euh, euh, de beaucoup d'endroits et qui ne sont pas favorables à la coalition Benno Bokk Yakaar il s'agit notamment de la région de Dakar on parle également de la région de Thiès. réaction euh, Aly Ngouille Ndiaye bi fi nekkoon euh, ministre de moom la ñu am léegi dañ ciy toftal léegi euh, réaction Ali Bandel Niang plutôt mi nga xamante ne moom moo nekk moo ñu nekkal foofu ci diwaanu maatam Ali ñu ngi lay nuyu. waaw Ali ñu ngi lay nuyu di la déglu ci ci résultat yi foofu la ca diwaanu Matam. voilà globo yu yan ci yi nga xam ne am nañ ko léegi bu ñuy jëlee commencé ko commune Ourossogui nga xamante Euh, li nga ñii di waa Sénégal am nañ fi six cent soixante quatorze voix Yewwi Askan Wi am fi six cent trente six voix waaye Benno Bokk Yaakaar gagné ak trois mille cent soixante quatre voix Agnam Koli euh, Yewwi Askan Wi am euh, cent onze voix Wallu am douze voix Benno Bokk Yaakaar am mille cinq cent cinquante une voix Dondu nag doon na commune bi fare ci Dandemaay bi te fan yëpp ci gannaaw ci suñu ay journaux ñu ngi wax mouvement population ba fa amoon waaye waa Yewwi Askan Wi am nañ fa vingt neuf voix wàllu am fa sept voix Benno Bokk Yaakaar am fa sept cent huit voix waaye nag ci biir dëkk bi bulletin nul niñ ko menacé woon noonu lañ ko amalee ndax am na quatre cent vingt cinq voix Janjoli nekk ci commune bu Ogo fare département bu Matam Yewwi Askan Wi am dix sept wallu am douze Benno gagné ak sept cent quatre vingt neuf weendu Boseyaabe bu ñu jëlee eh, huit bureau de vote yi nekk ci biir dëkk bi Yewwi Askan Wi am nañu dix huit wàllu am onze Benno Bokk Yaakaar am mille trois cent quatre vingt trois voix Goudoudé ci biir commune bu Dabia wàllu am cinq Yewwi am dix huit Benno am cinq cent soixante quinze beneen dëkk gannaaw moo ko Tafsir Balla bi ñu leen doon wax sànq ni waa opposition gagné nañ ko mu di lu njëkk wàllu élection fii ci Matam bi Macky Sall jëlee lengeeg léegi mooy dëkkub caareen fii Benno Bokk Yaakaar dafa daanu Yewwi am na quatre cent quarante deux Benno am cent quarante une voix Sinthiou Garba mbooleem bureau de vote yi Yewwi am euh, cinquante quatre wallu am dix neuf Benno Bokk Yaakaar am mille cinq cent cinquante cinq voix ville bu Orkadiéré nekk chef lieu d' arrondissement Askan Wi am vingt et un wàllu am soixante seize Benno Bokk Yaakaar am deux vingt sept voix beneen événement encore mu xew ci biir commune bu Orkadiéré mu ngi amee ci biir dëkk bii di Balel ñaari bureau de vote a fa amoon Benno Bokk Yaakaar cent pour cent la def ci bureau de vote yooyu ndax am na ci trois cent cinquante voix foofu nag da di ki nekkoon questeur assemblée di Daouda Dia ci Sinthiou Polel itam paral ak parallal Benno Bokk Yaakaar am nañu deux mille cinq cent cinquante cinq voix Yewwi am onze Wallu am trois bu ñu ñëwee ci bu ñu demee nag département bu Ranérou xam nga foofu enclavement bi ñu ngi ko doon wax ak taw yi léegi la ñu jotandi ci résultat yi commune bu Ranérou globaux yëpp Yewwi Askan Wi moo am cent quatre-vingt-trois voix Benno Bokk Yaakaar am mille trois cent dix-huit voix ci euh, commune bu Vélingara Yewwi Askan Wi moo jël deuxième am cent neuf voix Benno Bokk Yaakaar gagné ak mille deux cent quatre-vingt-huit voix commune bu Oudalaye Yewwi Askan Wi douze voix la am mais lii ci centre de vote bi nekk ci biir ville bi Benno Bokk Yaakaar am quatre cent cinquante sept voix euh, ville bu Conox doon beneen dëkk bu gën a mag ci commune bu Vélingara Benno Bokk euh, waa Yewwi Askan Wi quarante cinq voix la ñu am waa Benno Bokk Yaakaar am six cent trente cinq voix ville de Younou Feré euh, Askan Wi soixante deux voix la ñu am Benno Bokk Yaakaar am six cent quatre dix neuf voix ma jeexale ko nag ak Agnam ndax ba léegi résultat yi ñoo ngi ko complet ndax foofu vote bi daf mel ne dafa guddee waaye bu ñu jëlee lu mel ni Agnam Tulil Thialé Yewwi Askan Wi di voix la am euh, euh, waa Wallu am deux voix Benno Bokk Yaakaar am trois cent soixante quinze voix ma jeexale ko ak dëkk jor bi Diorbivol fi nga xamante ni euh, Benno Bokk Yaakaar moo gàddu ndam li am cinq cent soixante dix huit voix Yewwi Askan Wi am seize voix voilà Sara yenn ci ay résultats yi nga xamante ni jot nañ leen complet ba additionné leen ñu yeggee leen ko en attendant yeneen euh, dépouillement yi nga xam ne mu ngi wéy ci ay bureau yi nga xam ne dañoo pro woon vote bi ak yeneen yi nga xam ne enclavement bi tax na ba gaa ñi mënaguñu remonté ba ñu mën a jot chiffres yi. jërëjëf Ali Bandela tout à l'heure kon mbarka ñu daal di euh, euh, dans le nord mu mel ni pour tendance yi ñu jotagum la avec Ali Bandel ak yi mu ñu doon jox tout a l'heure Benno Bokk Yaakaar fi mu nekk nii moo nekk gum bu baax a baax ci kanam kanam mais ñu continuer wéyal li nga xamante ne moom mooy analyse bi euh, Barka. waaw dama doon wax ne donc euh, am na enseignement yu provisoire yu ñu war a mën tirer ñun ñëpp. Mhm. en attendant les résultats définitifs parce que yà a y a des constantes. constante bi mooy au au minimum avant d'avoir les chiffres euh, définitifs officiels certifiés mooy que am na quand même ay tendances très lourdes qui se confirment le vote. des grandes villes euh, pendant les locales euh, qui ont été défavorables au pouvoir vote boobu dafa confirmé wu ba amplifié wu dans certaines localité mhm. tey sur euh, la plupart des localités yi nga xam ne fa la axe bu bu axe bu population bi majoritaire quand tu prends l'axe Dakar Thiès Diourbel euh, Touba ba ba tax tey mën nañ ci wax Saint-Louis euh, jëm Louga Euh, waxuma waxu Ziguinchor boobu boo xam ne c'est c'est sans surprise ça prouve que quand même l'essentiel des grandes villes à sanctionné de manière claire nette et précise précise le parti au pouvoir que c'était les tendances yu ñu amoon ci locales yi moom la ñu moom la ñu amplifié au niveau législatif ñu ngi doon wax le matin euh, taux de participation bi et effectivement ça a étonné tout le monde que mu wàññeeku mm-hmm. mais dama yaakaar ne dañu nekk di créer waat ñun Sénégal loo xam ne c'est assez inédit dans les annales de la science politique généralement quand le taux de participation est faible ça favoriser le parti au pouvoir mhm. généralement tout mais bii tey dañoo gis taux de participation bi mu faible ba pare en tout cas ci lu ñu gisagumoon en attendant toujours parce que c'est difficile de faire des analyses à chaud il faut très prudent avoir de la retenue parce que euh, tant lépp leeragul mu ne ko wax moo tax li may wax c'est c'est un peu je mets beaucoup de gants mais si ça se confirme que taux de participation bi dafa faible. Mhm. c'est assez inédit de voir un taux de participation faible boo xam ne qui se traduit mhm. par euh, une défaite ou bien par une sanction très forte contre euh, le, le régime en place mhm. loolu tamit mu nekk hypothèse bu bu intéressante beneen bi mooy ñu ngi xool nan la scrutin bi nar a tëddee opposition bi dafa doon campagne sur le mode possible de la cohabitation su dee opposition bi dafa gagné ñu nar a dugg ci hypothèse euh, cohabitation si c'est confirmé ñoom ñoo gagné on est encore euh, on a fait un pas de plus vers de l'inédit en termes de de maturité démocratique parce que même dans des pays assez sophistiqués comme la France les deux premières cohabitations yi ñu gisoon foofu c'était de c'était de l'inédit ils ont pu avoir la, la maturité beaucoup de contorsions euh, constitutionnelles ba mun ko ba mun ko gérer. ñun tamit rien n'empêche que su fekkee cohabitation dafa dafa war a am ñu am benn président boo xam ne dañ ko gagné mais mu war a terminer mandat ak benn opposition parlementaire boo xam ne majorité ministres yi. foofu la ñuy foofu lay jóge dina nekk encore benn hypothèse d'école mais loolu mënaguñ ko confirmer dañu nekk di tiire sur des des plans sur la comète mais ñi tendance yi commencé war nañ ci commencé bàyyi xel ba gis lu ko lu ko inversé alors même si nag tey oppo euh, pouvoir bi moom moo gañe dafa gagné finalement ñu wane ne dafa gagné majorité département bi le mode de scrutin favorisé ko y a message quand même qui très clair boo xam ne tamit mënuñu ko bañ a tirer en principe la question du troisième mandat est définitivement réglée ce soir. Parce que, avec un rejet aussi massif dans les grandes villes, je vois difficilement euh, président bi flou bu mu doon entretenir euh, flou boobu mun continuer parce que dans les urnes et de manière claire et nette euh, sénégalais yi wane nañ ne troisième mandat c'est une euh, d'accord uñ ci parce que aussi l'opposition a fait campagne contre le troisième mandat. Mm -hmm. c'est ce qui rendait ces législatives Euh, bu ay élection député kese daf ci raxaale pour ou contre comme référendum est-ce que vous êtes euh, pour ou contre le troisième mandat bien que président bi dafa waxul na day def troisième mandat mais am na ñu bëri ndax acte yu mu posé ak yenn partisan yu ñu posé yu jàpp ne dafa bugg dem troisième mandat mm-hmm. et que peut-être su gañee massivement lay doog déterminé wu donc le flou boobu mu doon entretenir naan du waxagum tey xaar ba élection yi jàll dafa mel ni tey euh, askan wi euh, tranché nañ euh, envoyé waat nañ ko beneen message de manière démocratique et de manière pacifique rappelé ko moom en partie il avait été élu sur la base de l'opposition au troisième mandat de Wade donc su fekkee li may wax nii peuple bi dafa confirmer votam ça veut dire que la question du troisième mandat bu nekkoon lu ñu nangul woon Ablaye Wade moom nanguluñ ko ko et il devrait pouvoir en tirer les les conséquences. alors euh, Pape Ngagne dama bëgg bëggoon euh, ñu ñëw at tuuti ci li nga xamante ne. waaw vas-y vas-y. c'est vrai que man duma analyste politique comme grand bi macha allah. <laughs> Euh, parce que mais mais mais li ma li ma bëgg wax mooy dafa dafa dafa am lu mu lu mu wax loolu dafay fekk si lu ma la waxoon tout à l'heure parce que dama la waxoon ne la euh, tendance yu mel nii c'était lu ñu mënoon xaar la. Mm-hmm. parce que bu fekkee dañu sukkandiku ci ci ci ci mathématique wala arithmétique xaw ma nu ñu koy waxee noonu. wallu ak yeewi ku ne xalaatoon nañ bu ñu réussir seen ànd mën na jur lu mel nii mais dafa am loo si yokk lu am solo mooy mooy le problème mu troisième mandat bi problème mu troisième dafa nekk problème boo xam ni mais moom itam bu ci rajouté woo ñoom ñu campagne ko lu mel nii mënul woon ñàkk nga wax aussi lu am solo parce que bu fekkente ni da nga wax ni euh, taux de participation bi bu faible ba pare mu favorable ñi nga xam ni ñooy yi mais loolu c'est inédit ça c'est daan gis ñu bëri sax peut-être ci bennoo jàppoon nañu ne muy taw sax moo leen arrangé parce que dina leen permettre ñoom ñu mën a dem génne seen ay militants voté loo leen parce que ñoom ñoo am pouvoir boobu su fekkente ni taux de participation bi faible na ba nit ñi mënuñu ñëw moo xam problème mu climat la moo xam problème mu tayel la moo xam problème mu lan la ñoom am nañ possibilité ñoom la pouvoir pour génne leen mais malheureusement gisuñu loolu li ñu gis mooy taux bi naam li ñu mën a c'est vrai li jàpp ba léegi mooy taux bu faible la par rapport ak élection yu toll nii bu fekkente ni loolu favorable li nga xam ni moom mooy euh, camp présidentiel bi loolu itam mooy li nga wax lu inédit la loo xam ni itam xaaruñu ko woon. Euh, euh, duma bëggoon ñëwaat ak yow Pape Ngagne ci li nga xamante ne benn schéma la boo xamante ne lu guddi gi di dem.